turu jumaay Touba ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma ànd gi ñu ànd liggéey bi di nga koy rafetal ci lañ lay ndokkeel ci jumaay Serigne Touba ji téere bi def mooy liggéey yi ñu doon def mooy conférence yi yi weesu moom la ñuy tënk def ko téere nga xam dana man ab nga xam ne ku bëgg gëstu. au lieu ngay dem di gëstu di wër fu mhm. lu bare bari nekk na waaw ci liggéey la bëgg a bokk. <laughs> gën koo fasante ko la. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu ñu ñaaneele Cheikh Mamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko. noo ngi nuyu waa daayira bii di Muxaddamatul Xidma di tàmbalee nuyoo bi ci Serigne Afia Bousso mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ñaan yàlla sunu borom yàggal ko te dëgëral ko ba yéene yëpp yegg waaye di nuyu sunu kilifa yi ñu feggool Cheikh Abdou Lahad ñoo ngi leen di nuyu baax sam ne moom it moom lañ doon moom la ñuy jokkal waxtu ne te bokk yi doxale ko sunu diggante te mu matale ko bu baax ak sëñ Abdou Lahad euh, moom it Maxtaar ak sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne moom it ñoom ñoo bokk nekk ci liggéey bi di leen ci jaajëfal bu baax nag ni ko mbokk mi waxe tey jii xaj na nun dañoo ñëwoon ngir. Euh, waxtu wu nekk bis bi dañu daan ñëw sax ci waxtu séntu weer waaye tey jii Sëñ Abdou xam naa lii la taxoon mu waxoon na nañu ñëw jiitu si loolu ñu it ñu bàyyi yitte yi ñu nekkoon yëpp ñëw ndax ku xam taxawaayu Muxaddamatul Xidma ci fànn yi nu amee yëpp ku fi ñëw tey ba euh, couvrir liggéey bi euh, dangay wax ne bu ñu féetewoo woon wàll wii rek doy na sëkk te boo demoon tey ca Baqiyan loola nga fay fekk bu fekkee ci biir liggéeyu jumaa ji it ci setal ko saytu ko loolu geneen fànn la ci bernde yi nga xam ne tey euh, liñ ma mujj a wax léegi wax nañ ne loolu daaw li dem na ci juróom fukki million nangam li ñu defoon daaw li ñu def réew moo ko ëpp waaye li ma ci gën a yéem it mooy du bàyyi ko ci euh, bit se keesu Muxaddamatul Xidma waaye social la jaayante la boo xam ne dañu koy dañu koy def loolu kon meneen beneen beneen beneen taxawaay la boo xam ne dañ ci gën a wone euh, liggéeyu sëriñ bi gën cee wone it ni sëriñ bi di taxawoo nit ñi ci wet gu ne euh, bi ci toppaat muy beneen fànn boo xam ne seen domaine la muy jataayu xam-xam yi ni amal ci ci ci koor gi du koor gi rek boo demee ci bu màggal gi jub si boo demee ci euh, bu gàmm gi jub si ak yeneen jataay waaye koor gi daf ci gën a yaatu ndax dafa tegale fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yoo xam dafa diire ñuy dajale boroomi xam-xam ci dëkk bi ak ci bitti dëkk beeg ñëpp di tànn tomb yoo xam ne bu ñu ko waxtaanee ñëpp man koo jariñoo loolu kon tey jii li muy wone mooy ñoom yaatal nañu seen loxo seen lë seen liggéey wane nañ yoon wi ñuy liggéey ni ñuy liggéey te loolu mooy jëmmi jëm dëgg-dëgg liggéeyal sëriñ bi mooy dimbale nit ñi ak bay ci toolu xam-xam bi ñuy ñëwee waxtaan ñu fi fekk léegi seen shérif mu Cheikh Abdoul Fadal doon ko amal loolu njariñ la loo xam ne ñeel na ñëpp ku ne mën na ko yóbbuloo ku ne dégg na ci ay tomb yu am solo kon Muxaddamatul Xidma moom euh, daayira la boo xam ne mbooloo la moo xam ne mu mat a bàyyi xel la mu mat a gestu seenub liggéey la ñoom ñi ngi ci li leen war waaye koo xam ne tey bu doonte ne jataayi xam-xam yi la rek waroon na ku ne bàyyi ko xel rawatina lii ñuy defar ci weeru koor loo xam ne tey lu gàtt gàtt ñeenti téeméeri ñeenti junniy nit ñu di leen jox ndogu xàmmeewuñ kii kum doon ak foo bàyyi ko ku mu nekk. dañuy ñëw organiser la ñëpp toogandoo te bokkandoo lenn lu ñuy xewloondoo yi loolu liggéey la boo xam ne bu rafet leneen li ci des mooy sunu diggante ak ñoom euh, ñoom li may wax rek dañ leen di saytuloo Euh, li ñu responsabilité yu rëy yi nu yor ci yoon wi euh, defe na ak kuréel yi mel ni moo ñoom te ñuy benn kuréel ndax ñoom ñëpp boo leen seetee benn mbooloo lañu rek diggante raw du rayaaxin ak diggante mu xaddamatul xidma menn mbooloo lañu ndax bu dee ci wàllu xam-xam la tey jataay yi jataay raw du rayaaxin lay doon bu dee wàllu liggéey bi liggéey bi day taxawee ci mu xaddamatul xidma kon ñoom euh, ku ñu bàyyi xel ci yoon wi ci di xool saw doxaliin loolu am na lu mu war a def ci yow mooy war war na la soññ war na taxit nga gën a góorgóorlu ndax ñoom setuk tool bi rek leen yitteel maanaam Moukhaddamatoul Khidma moom xooluñu kii fii la bokk xooluñu kii kii la doon ku yoon wi yitteel rek eh, diine ji yitteel rek doxin ma nga ca war a doxin nga di ko ci dox boo ko yëgee boo ko yëgut fay nekk ña nga la cay bàyyi xel te lii day lu door ak si waaye defe naa relation yu yu jege yu yu rafet moo dox suñu diggante ci ay jokkalante loolu feeñ na ci rek boo bala nga ko mënoon a xam tey loolu maa ngi koy wax sama bokki conférencier yi nga xam dañuy gëstu mooy bala ngaa gënoon a xam loolu nga am yitte ci gëstu dara lu jëm ci yoon wi coono coono bañ cee sonn ak nañ cee taxawee nga xam ne bu aajo woon wuti copier ko sax ñoom ñoo la koy copier taxaw ceeg yow leeral la rawatina téere bii ñu joxewaat tey jii nga xam ne dañ cee boolee jataay yi nga xam dañ koy amal di ko waxtaane defe naa lu ci nekk ci tomb conférence tey mënuloo ko jeexal ci at ndax daanaka lu ëpp ci jataay yi murid yi euh, thème yi mën naa xaw a jege nuroo kon ya cay wuute bu doonee bii tey beneen ba muy doon ëllëg mën naa nekk lu yaatu kon day mel ni bu fekkoon ne daal ab tool lag dañ la jox ab ëllëer jox la mboolem jumtukaay yi nga xam ne mën nga koo liggéeyee lañ ngir soo doxee gën a mat kon noonu it noo ngi leen ciy sant bu baax ñoo ngi leen di jaajëfal baax di gën a dollee ànd yéen liggéey bi bi ñuy ñëw it sëñ Moustapha Guèye mii la ñu àndal mu jógee Darou Moxti ak sëriñ Daaru Guèye mi nga xam ne ku nekk xam na sunu diggante waaye sëñ daam seen mu jóge Njaareem ndax yitte li muy bari bari dama ne ñooñu moom lu ñu jàpp dañ koy bàyyi dem wujji leen ànd ak ñoom liggéey bi kon lii nag sëñ Abdou Lahad sunu xol sedd na ci bu baax a baax sunu xel dal na ci bu baax a baax ab soññee la it léegi liñ ciy sàkkuwaat rek mooy ak ñaan waaw ndax yéen yéenay xëy ci wetam yéenay xëy ci lim bëgg kon nag noo ngi sàkku ngeen gën noo dool doolee ñaanal lu nekk dëgg dëgg teel te waaw waaw waaw kon nag <laughs> kon nag na ngeen lu ko jàlle loolu daal mbokk bi moom lañ ci doon jot waaw waaw lii xam nga laxasaay la moom nee naa xam naa day gën a soññee nga gën koo takk dalal sa xel damay wax ne it euh, nit ki moom lu mu nekk na ca nekk ak yéene ju sel ndax nun moom amuñu benn jubluwaay wala genn bëgg lu mooy rek lu gën a xiirtal nit ñi wala gën leen a xamal sëriñ bi ndax sëriñ bi njariñ njëkk la te ginnaaw gis nañ ci waxi boppam wax ne nit ñi nu xamoon li fi man dañ koy wuti danañ daw wut si ko waaye bañ ko réeree sàkku ju ne leneen comme loolu gis nañ ko ci mbindum boppam mu wax loolu kon defe naa xiirtal nit ñi wala dimbale nit ñi ci ñu xam loolu ba ñëw ci njariñ li loolu mooy li am solo loolu mooy suñu yitte ju sell ji nu am kon nag bu ñu ñëwee tey ji mu xaddamatul xidma jëlaat lu mel nii taxaw nii euh, def ko décoration loolu laxasaay la soññee la ndam la loo xam ne it lu ñu jàppale lu rëy la ci ndax Euh, mbir da ngay xool euh, dañuy wax ne mbir dana rëy ñu ne la ko rëyal la tax ñu def ko waaye fa tax ñu defee ko ak ña ko def ñamu mu doon. ko defe naa loolu muxaddamatul xidma bu ñu nee woo nañu Gana Messere ci jumaa ji Euh, décoré nañu ko ci loolu moom ab soññee la ak dal xel la ak ak it won ko yoonu ne ñi ngi lay xool kon day daal di xam ne am na lu sañu ko def doon ko nekku ci woon it dafa gën a war a continuer ci loolu mooy fexe gën a ànd ak yéen léggéey bi bëgg nañu ci loolu daal bu baax a baax bu su jërëjëf